is a great pleasure to serve you and thank you for being faithful of our programs. Dear internet users of TMS TV bëggee nañu leen mbégteeg bànneex la ñuy am saa su nekk bu ñuy dal fii sur la TMS TV muy télé bi feeñalul nëbbu te làmboo ak euh, njariñ di leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu le xalif général des Djinns El Hadj Thierno Moule Sow ah depuis France di ko jaajëfal bu wér di ko jox wàccuwaayam di nuyu madame Sow la ren ah. ak njabootam yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp vous qui nous suivez à travers YouTube ñu ngi leen di jaajëfe di leen di kontaane di leen wax ni yéenay suñu doole avant de commencer je vous suggère d'aller sur YouTube à la page TMS TV vous abonner activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos informations boo leen bëggee TMS TV dara bañ leen ci rëcc def leen loolu partager leen commenter leen like leen ndax TMS TV vraiment dafa làmboo ak euh, njariñ ñëwati nañu ci suñu émission Ramadan TMS Ramadan TMS un grand rendez-vous ah ci ngoonu koor et muy am chaque semaine fii sur la TMS TV ñu ci ànd ak euh, kilifa gu baax kilifa gu màgg oustaz Babacar Dieye ah oustaz bu vingt et unième siècle ki xew ki nga xamante ah moo réew mi te niveau dépassé na fu euh, niveau Oustaz yam ñu ngi koy jaajëfal bu baax jéema Samba ak Yérim Oustaz nuyu naa la. waaw jërëjëf xaaj jaaji ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax ni ñett yooyu nuyu ëmb muy jàmm ak yërmande ak barke yàlla na la ko yàlla defal yàlla defal kom mboolem àdduna bi yëpp jiital ci nuyoo bi alxaaji Cerno Mulay Saw di ko ziar bu baax moom itam di ko ñaanal yàlla jàmm ak sutura ci barke yonent bi waaye nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan ci TMS TV ci émission bu mag bii di Ramadan TMS. jërëjëf Ramadan TMS xanaa boobu mooy bu Oustaz bi. <laughs> waaw Ramadan TMS ñun noonu lañ koy waxee waaw. <laughs> jërëjëf Oustaz hmm. ci suñu émission comme vous savez. Hmm. Euh, nee nañu koor. et quand parle du Ramadan on hmm. parle de la religion. Oustaz. ku nekk xam ne bu nekkee ci koor joxe ñam mhm. dimbalante générosité mhm. ah jàppalante da cee baax mhm. tey suñu temu tey moom mooy les bienfaits de la générosité dans le mois du ramadan maanaam maanaam ngëneelu mbaax joxe soit koy dimbal ci sa doole koy dimbali ci ay ñam koy ndimbal daal dimbalante ci weeru koor ngëneelam la ñu bëgg xam jërëjëf alxaaji jaaji tabaarakallaahu dimbalante moom alaakule xaal moom lislaam dafa nekk diine dimbalante lislaam dafa nekk diima diine dimbalante ndax yàlla moo ko wax wa taawunu alal birri wa taqwa yàlla nee na na dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla yonentu bi sallallahu alayhi wa daan ko digal saxaaba yi ni leen képp koo xam ne am na te wóor na la ni sa moroom amul na nga ko dimbali xam nga dem na ba yonentu bi salaay salaam wax ni wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin maa ngi waat ni gëmul yàlla maa ngi waat ni gëmul yàlla maa ngi waat ni gëmul yàlla euh, Babacar Saddiq ni ko fa man laa yumin yaa rasulallah ni ko maa ngi lay laaj ana kan moo gëmul mu ni ko mooy ki nga xam ni reer na ba suur biiram fees mu tëdd te wóor ko ba xam dëkkandoom mbokkum jullitam daa fàtte jamono ji <laughs> mbokkum jullitam dëkkandoom wóoru ko ba xam reer na wala añ na wala ndékki na wala ndogu na comme ci weeru koor gi kooku yonent bi nee na eh, bu fekkee dafa tuddee boppam ku gëm yàlla wala jullit itam eh, njullitam des na ndax ab jullit amul droit lekk ba suur rawatina di desal di denc wala muy denc dara di ko xaare suba te te te te te te mu wóor ko ni dëkkandoom am na ci soxla waaw de mbaye nii ko moom ak ñangeen ñi dañuy reet ba doyal <laughs> fëgg seen biir toog na naan alhamdulilah nga ne joxe dimbalante ci weeru koor oustaz hmm. dañoo gis ni actuellement bu weeru koor jotee tendance la léegi ñëpp dañuy def ay café ñuy def des tentes di joxe wee ay lekk comprendre nga hmm. mais est-ce que loolu ngëneel la ci weeru koor lan la ci diine wax en plus est-ce que loolu parce que dañoo gis ni la dafa bari folklore la. Hmm. lan nga diine wax ci ngistal aussi ci loolu. waa xam nga euh, joxe ndogu yi ngay gis ci mbedd yeeg yu mel noonu euh, daanaka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga dafa am ñu ñuy tuddee ibnu sabil ibnu sabil mooy ay ñoo xam ne ay doomi yoon lanu doomi yoon buñ ko waxee mooy mooy koo xam ni ci àll ci mbedd mi rek lay nekk di dox peut-être kii taalibe la buy yalwaan doomu yoon dogguma oustaz moom mooy ki nga xamante ni dafay nekk ci mbedd bi ndogu di ko fekk ci mbedd mi j'espère di ci yoon wi voilà ci yoon wi moom la ñuy wax ibnu sabil maanaam ndogu fekk ko ci yoon bi voilà xëdd ci yoon beeg yooyu voilà voilà waaw peut-être mën na nekk ci marchand ambulant yi man na nekk ci eh, ku loxoom jotul ginnaaw mu demoon sàkku ji lu mu dunde wala yu mel noonu daal xam nga ñooñu tey bu fekkee ni toujours ndogu da leen di fekk ci mbedd yi te amul ñu ñu nekk ci mbedd yi di joxe ndogu bu boobaa ñooñu ñooñu eh, mën naa bañ a baax ci ñoom looloo tax wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax man aftara saa'iman misla ajrihi walam yam walam yanxus min ajri saa'imi shay'an nee na képp koo xam ni dogal na ku woor dina am yool bu tol ni ki wooroon yool yool ba mu am te du wàññi dara ci yoolu ki nga xam ni moo woor man su ma wooree ba ngoon yow nga jox ma ma yow nga jox ma lu ma doge di nga am yool bu tol ni yool bi ma am ci koor gi te du wàññi dara ci sama yool man bonus lay doon lay doon voilà moo tax euh, tabaarakallaahu loolu am solo mm-hmm. mais nag képp ku koy def na fekk nga am ko. te yàlla rek tax. na fekk nga am ko na fekk nga mën ko. Mhm. aussi nga génne ko def ko te yàlla tax. Mhm. mais kenn waxu la ni da ngay tëdd ci tali bi. da ngay kar nit ñi. di yalwaan ah da ngay kar nit ñi da nga leen di sonal da ngay fitnaal nit ñi. Mhm. pour pour def ndog boobu noonu. loolu kenn kenn kenn kenn kenn waxula ko. et ko que ñaan bi bi ñuy éradiquer di promouvoir ñaan bi aussi eh, un jeune wala jullit boo waree dimbali sa morom danga ko war a def ci sa propre fond te yàlla tax j'espère. waaw xam nga ñaan bi tamit nit ñi. xam nga yàlla dafa wax ni dañuy jéppi jéppi suuf. xam nga yàlla dafa wax ni xam nga yàlla dafa wax ni. wa anfiqu mimma wa an anfiqu mimma razaqnaakum mhm. yàlla dafa wax ni na ngeen dépenser ci li nga xam ni moom laa leen wërsëgal maanaam liggéey nga ba weer wi dee ñu fay la nga génn ca daan la fay nga dépenser ci def ci ndogu wala yaa liggéey ba ngoon ñu fay la sa xaalis nga jël ko def ci ndogu wala en tout cas daal xaalis bi yaa ko moom maanaam laajoo kenn ñaanoo kenn parce que am na ñoo xam ne itam boo yoree bool am na ñoo xam ne tey aussi bu ñuy joxe ndogu aussi dañuy yor seen bool kuñ ni jàpp kaasu café taal la bool bi loolu mooy kaay ma jaay la café ah, loolu kaay ma jaay la café nekkatul ndimbal jaay la loolu kaay ma jaay doon. xam nga yéen ngi jaay kafe ci réew mi de jaay café bi léegi moderniser moderniser nañ ko def ko ci beneen façon voilà xam nga bu ñu nee la boo boo nee ma jàpp kaasu café jox ma ñaari tàndar ma taalal ma boîte bi. Mhm. ma yëkkati cent franc teg ci kaasu café lay jar. Mhm. mbuusu tàndar juróom lay jar kon yow yaa ma war a juróom du dëgg. nga téye weccit bi. voilà nga téye bu ah, amee fuga nag daf ko war a laaj weccitam daf koy war a laaj weccitam. xam nga xam nga kon xam nga kon xam nga kon danga ma jaaj. Mhm. moo tax daal euh, alaaj jaaji yàlla li mu santaane mooy nga jël ci li nga xam ni moom laa la wërsëgal. nga jël ci li nga xam ni moom laa la wërsëgal nga defar ci ay ndogu. loolu nag alaa kulli xaal képp koo xam ni def na ko na xam ni am na yiw wu rëy rëy rëy woo xam ni kenn mënu koo dabu waaw xam nga nit moom lu muy def te yàlla taxul perte na ko ndax dafa bari léegi tendance gis nga gis nga booy def euh, koor gi bu ñëwee ku nekk day jël sa dat def ndogu. comme wow. si que xew la daal. waaw xam nga ndogu yooyu ñuy def sax di ko di ko woote di tànt nangam nangam nangam gis nga boo xoolee ci say dëkkandoo la nga defar la nga la nga defara ndogu boo xooleen sa benn dëkkandoo nga globaliser ko jox ko ko dina mën a dund ba koor gi jeex te du génn di wuti ndogu parce que am na ñoo xam ne tey fii may wax ak yow nii. nga xam ni 16h ay 16h 17h 18h dina jot am ñoo xam ne ba tey amaguñu lu nu ndogoo. ñi ngi ñi ngi xalaat ñi ngi tuññi tuññi ñi ngi wër. léegi ñooñu tey boo xoolee ci say dëkkandoo ndax dañ ne xaqul jaar xaqul jaar arba arbauna daaran xaqul jaar arbauna daaran dañoo wax ni dëkkandoo xaddul jaar xaddul jaar dañoo wax ni dëkkandoo fa mu yem arbauna daaran mooy quarante kër léegi yow boo xoolee quarante kër côté bii quarante kër côté bi quarante kër côté bi et à ak ci kanam ak ci ginnaaw mhm. léegi foofu fépp boo fi xoolee di nga gis koo xam ne day xëy di lijjanti ji ndogu am na ñoo xam ne seen seen seen ndogu tey seen ndogu tey amagun ko laa wax ñu ngi koy lijjanti te amagun ko léegi sama ndogu tey matagut voilà sama ndogu tey bi voilà léegi yow mii nga xam ni nag léegi yaa yor loo xam ni peut-être da nga koo tuddee da koo tuddee ndimbal la na ngay la ngay baase ca mbedd ma kay teg sonorisation ba di bëgg rey nit ñi ñuy xaabar xaabar yi ah? di kar oto yi di kar oto yi di tàllal leget di laaj yu mel noonu di ci dolli naan su lu nu suukare kafe geeg lu nu mburoo kafe gi waa la la nga jot am commerce mu ngi ci la nga jot am li am ci reket gi yëpp voilà chaque jour waaw ah saa léegi léegi yow léegi yow la nga jot a am la nga jot a am jar na benn saaku ceeb jar na cinq litres diwlin wala dix dina des benn enveloppe jël ko xool benn dëkkandoo boo xam ni wër na la ni kii kat day xëy di tuñ tuñi di lijjanti ci ndogu nga jël ko jox ko ko ni ko comme koor dafa metti te dama lay gis ngay góor góorlu ndax weeru koor wi yëpp nga mën a toog mën a koor koor gu koor gu sedd xam nga nga bañ a woor topp naaj bi di tuñ tuñi gis nga kooku rek bu la ñaanalee bu dee yàlla ngay wut yàlla yàlla yàllaa nga foofa bu yàlla ngay wut rek yàllaa nga foofa parce que itam yonent bi salaay dafa wax ni sadaxatu sirri. aussi yàlla dafa am fula. Mhm. loo ko jox moom la lay delloo. moom la lay delloo bu fekkee da nga gis tal. Mhm. ah li ngay def ci àdduna la yem. waaw waaw xam nga yonent bi nee na. salaahu salaam ki nga xam ni moo jëf. jëf joo xam ni da koo teg ci riya muy gistal nee na jëfam jooja amu ca lu dul. amu ca lu dul riya nga wax mbaa bokkut ak riya transfert bi. non riya ak riya u mooy gistal. ah ok ok ak riya u. da ngay leeral yow it <laughs> xam man man man man. continuer fine ne jaaji transfert moom ñëpp a ko soxla. Ah. ñëpp a dëkk bi moo toj. weer wi weer dëkk bi toj na dëgër na këj nee na kale na kak kakaaral ñëpp soxla transfert. mais da ngay da ngay gëm yàlla rek. ma ma ci woo ma ci woo nit ñu baax ñi sama géer ñi weer bi sori na de oustaz des fois nga wàcc am foo jaar ñu am na ñu defante. waaw bu ñëwee bu ñëwee bu ma fàtte. ah waaw ñuy ànd. bu ñëwee bu ma fàtte baax après dinañ fa ànd incha allah. jeex na incha allah demee na na nga noppi lu ma la wax loo wax ko lu ma la waxul. noppi foo ma yem loo fa laa yem. continuer <laughs> waaw xam nga arriyaa u mooy mooy ngistal. yonent bi salaay salaam nee na nit bu dee jëf-jëf joo xam ne da koo teg ci ngistal amul ca jëf lu dul jaajee def lii bu nu ko waxee moo cay bénéfice am bu amul chance ñu wax ko na xam ni mooy loolu te Sénégal loolu daf fi bari am na ñoo xam ne du nu may muuma du nu may muuma maanaam ku koo xam ne woo ci tele wala ci rajo man koo wax boo ko mënul fësal boo mënul fësal amoo fenn foo ko fësale peut-être télé wala rajo wala nga taxaw ci bâche nit ñi bari nga ni diw mii moo ma moo def nangam moo ma defal nangam nangam nangam nangam nangam ku mënul loolu duñ la may maanaam Euh, maanaam seen seen seen seen seen seen publicité la ñuy def daal. Mhm. boo bëggee dégg-dëgg seen publicité la ñuy def mais du dañuy jóg di dimbalee ngir yàlla. yaa ngi dégg mhm. parce que dimbalee ngir yàlla dafa dafa dafa dafa dafa metti mhm. def ngir yàlla def ngir yàlla dafa metti def ngir yàlla doo ca xool ku dul yàlla. doo ca xool jëf doo ca xool jaaraama doo ca xool sukkuran doo ca xool jaraagot doo ca xool daray doomu aadama. boo defee ngir yàlla pare nga ca. gis nga sëñ falu Mbacke dafa mos a romb benn benn benn benn benn waay caaro yi sëñ Fallou bi mu nekkee ci oto bi gis benn waay daal di daal di poñe beneen waay sëñ Fallou daal di demal nga laaj kee poñe euh, nan la kii lu mu ko poñee chauffeur bi wàcc dem ni ko maa ngi ziar na ngeen def kii loo ko poñee mu ne damaa yoreel dërëm booba dërëm dara la damaa yoreel sama dërëm lànk ni duma ko fay yaa ngi dégg bi chauffeur bi ñëwee wax ko sëñ faalu Mbacke sëñ Fallou Mbacke daal di yëkkati dërëm daal di yëkkati dërëm jox chauffeur bi ni ko demal nga jox ko yaa ngi dégg nee ko na bàyyi poñe bi parce que as kenn du ko poñe ci pénc yaa ngi dégg waa ji daal di jël dërëm bi daal di bàyyi daal di bàyyi koog chauffeur bi daw ñëw ci oto bi léegi kin poñe woon bi muy ñëw ci oto bi pour remercier si xamul sax sëñ Fallou Mbacke la mais bi muy ñëw pour remercier si sëñ Fallou Mbacke mi nga xam ne moo ko moo ko fayal bi muy daw di ñëw sëñ Fall ni chauffeur bi taalal ñu dem chauffeur bi ni ko ah moom daa mel ni daf lay sant si di mu ni ko bu ñëwee merci rek la may wax te merci yàlla laa gën a soxla jarul moom muy xam man la kan jarul muy xam kan moo ko defal bu ñëwee jërëjëf rek la may wax te jërëjëfu yàlla laa gën a soxla. loolu di amatu. parce que nit aussi man bu ma la defalee booy joxe. da nga koy wax waaw. dafay leer de dafay leer léegi réew mi loolu la fi xew. non looloo fi am. waaw looloo fi am moo tax kuy yàlla tax moom. ah moo tax na nat. moo tax it xam nga yàlla def naa xam nga xam nga xam yàlla dafa wax ni. boo jëlee téeméer saraxe ko ngir yàlla. boo jëlee téeméer saraxe ko ngir yàlla. balaa ngoon war ngaa mën a am junni. balaa ngoon da war a am junni. yaa ngi dégg mais nag joxe goog ngir yàlla moo bareetul. joxe goog ngir yàlla moo amatul mais ba léegi ba léegi nii may wax ak yow nii nii nii nii mm. boo jëlee joxe ngir yàlla balaa balaa balaa balaa ngoon nga gis ni yow defoon nga gis ni yow defoon nga ngir yàlla nga gis ni yow joxe woon nga ngir yàlla. te payoor boobu moo gën. no payu yàlla moom moo gën lépp. parce que doomu aadama yi aussi uh, bu ñu lay bu ñu lay tagg ak di la kii day fekk rek nga yor ko te mën ko. te oustaz wu ma ci gën jaaxal léegi. Hmm. Euh, mbiru diine. Hmm. dañ cee dañ cee dugal folklore de trop dangay gis léegi euh, gàmm wala dara ab géwal ñëw taxaw jël témoignage ab géwal ñëw taxaw ñu ngi sant diw ñu ngi sant nangam ñu ngi sant nangam dëgg la sax mais foofu folklore buñ fa dugal léegi dafa dem ba dafay dafay maanaam dafay xoñantal diine quoi ci ci ci lépp nag. waaw dëgg la xam nga euh, lislaam moom munu wootee Euh, ni lii tàkkusaanu yonentu bi la sallallahu alayhi wa sallam ba ci conférence koor yi da nga ko ciy gis koor gi conférence yi danga ko ci gis da ngay gis conférencier bi ñëw toog dañ koy jox tam conférence ne xew xew xew xew diine waaw waaw waaw conférence yi waaw léegi da ngay gis conférencier bi day ñëw toog ñu jox ko tem euh, woññi ñi ni leen dañoo organiser conférence religieuse dañuy waxtaan ci tem sàngam am na ñoo xam ni loolu ñu bëgg a waxtaanee ci wàllu diine moo leen indi ngir ñu xam ca lu nu xamul woon mais da ngay gis conférencier bi day toog ni nga gis ñu yor micro bi ñu ngi gërëm diw ah député diw maire diw ah opérateur économique diw nangam nangam mi ngi nii teew na ah mbooloo mi kii dugg si nag nangam ak nangam ni ki naa sa njaay ngir enveloppe ya nga xam ne moom la joxe ak yooyu dañuy mujj ci yooyu la ñu ne kon nañ ko jox kàddu gi mu wax kàddoom jog dem yoonam yaa ngi dégg ñu jox keneen mu wax kaa doom jóg dem yoonam ñu jox keneen mu wax kaa doom jóg dem yoonam ak mbooloom day mujj mbooloo mi kenn dootul xam lu muy nuru day mujj bu nuy bu nuy jox bu nuy bu nuy jox kàddu gi sax ki nga xam ni moom la ñu woo pour mu def euh, conférence wala yu mel noonu buñ koy jox kàddu gi day fekk waxtu wi cate na nga xam ni moom ñaari minute du ko wax kon déjà ña woo woon pour waxtaanu diine war nga leen parce que la nga leen woowe woon ñoom gisuñu ko mm-hmm. waxtaanu diine nga leen woowe woon ñoom war nga leen parce que la leen woowe woon ñoom gisuñu ko si yaa ngi dégg folklore yooyu nag léegi dafa bari ci diine dafa bari ci diine dafa bari ci diine tellement que kenn kenn xamul daal nooy def le Seydi Hadj Malick ni woon aaduna moom Sénégal moom aada daan fi diine aada daan na fi diine te diine dootu ko daan ba abadan rek moo fi nekk te itam def ngir yàlla amatu fi parce que bu dee xew-xewu diine boo ñëwee di ci def itam euh, yaakaar naa ni yàlla moo war a tax ngay def kon jëlal la ngay def rek nga joxe ko nànk ni lii maa leen ko jàppalee ci xew-xewu diine bi nga joxe ko nànk bul ca laa nuridu minkum jazaan wala shukura la Seydina Ali ni woon innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura yëkkati foor na <laughs> yow doo simple rek <laughs> yëkkati yu yam yi rek ngay yëkkati yooyu ok simple quoi waaw <laughs> ah, mais li may wax nii kay lu simple la li kawewul ci ci saaru suuf yi la innama nut'imukum yuufuuna bin yuufuuna bin nazri dafa nag minkum minkum wala shukura wala ne jox ma loxo bi shukura la Seydina Ali ni woon innama nut'imukum defal bu leen ma sant dama leen koo jox ngir yàlla minkum jazaan wala shukuran soxlawuma ci yéen ngeen ni ma jërëjëf soxlawuma ci yéen ngeen sant ma su ma leen ko joxoon ba pare ngeen saaga ma ndey itam du tax du wàññi dara ci pas-pas joxe bi ma leen ko jox mm-hmm. inna naxafa naxaaf min rabbina yawman abuusan qamtarira fa waqaahumullahu sharra zalika al yawm laqaam nadratan wa surura wa bi ma sabaru jannatan wa harira yàlla nee na Seydina Ali loolu loolu loolu jëf jooju mu defoon. parce que ses rimes waaw waaw sa poésie. waaw yàlla yàlla yàlla xam nga yàlla dafa organisation moom ci yàlla la fekk baax. si xam nga wala ah yaati dabb xat. dañ yaati xadd xadd mu ñëw dañ ko ak dakkan dakkan. boobu musaan jàng ba yam ci saar boobu. xam nga kallaa iddaa dukkatil ardu dakkan dakkan. wajaa rabbuka wal malaku safan safan. xam nga ñaar yooyu xam nga eh, yàlla moo mel noonu. wadduha wadduha wa layli iza saja maa wanaaka rabbuka wa maa xaa wala laaxiratu xayrun laka minal uulaa ah yëf yi nekkul fecc ak yooyu. dama lay wax. Ah, dama lay wax xam nga xam nga yonent bi salaay salaam. jamonoom. Hmm. jamonoom maanaam éloquence moo dominé woon. si. yonent bu muy yónni day xool la dominé la dominé. Hmm. mu jox yonent boobu lu leen joggati. xam nga jamono yonent yàlla Isa médecine moo dominé woon. Mhm. moo tax yàlla may ko mu mën a faj lu métti mënta faj. Mhm. gumba mu raay ko mu xool lafañ mu raay ko mu dox bàmmeel mu raay ko nit ka ni foo jot gaana mu raay ko mu wér. Mhm. seen na Isa yàlla da ko mayoon muy faj lu médecin yi mënta faj parce que jamono médecine moo dominé woon. Mhm. jamono yonent bi salaay salaam mën a wax mën a wax mën a. way ak taaru. mën a wax bu baax. mën a wax mën a moo dominé woon jamono yonent bi sallallahu alayhi moo tax yàlla wàcce alquran alquran dominé seen mbooleem wax seen mbooleem waxi Ah, moo tax mu mu parce que alxuraan bi bon c'est de la poésie boo boo koy déglu yow ci sa jëm day neex ba. même boo ko xamul sax yow sa xol bi day sedd. voilà mi ngi noonu parce que bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ne gëm nañu li leen gëmloo mooy mooy alxuraan ji ñu dégg ku mel ni Seydina Omar. ku mel ni ku mel ni Seydina Omar radiyallahu taala anhu dégg alxuraanul karim ñu koy jàng moo tax mu gëm. ndax dugg na ci kër gi dégg rakam alxaqatu hmm. wa ma adraka malxaqa kasabat samuudu wa aadun bil qaari'a fa amma samuudu <laughs> fa ahliku bi taaxiya xam nga alxaqatu mooy dëgg waa xaq waa xaq alxaqa wala kaana murran <laughs> <laughs> jaaji usaas nga de non damay sàcc ci say wax damay sàcc ci say wax. léegi looloo tax alquran ñëw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax na naa afsax man qara do da waxal do da voilà da daan wax ne naa afsax man qara do gën a éloquent kuy wax baatu do parce que yombul woon bu njëkk bu ñu éloquent woon ci maaka yëpp koo ne waxal do du ko mën a wax do danaa la da do da da tegal sa loxo mu ñëw ca daba la merci beaucoup oustaz liñ fi jot a wax ñëpp dégg nañ ko les bienfaits de la générosité ci weeru koor mu doon loo xamante ni dañoo gis sénégalais yi dañoo social sénégalais yi dañoo eh, dañoo dañoo mën a dimbalante ci ñenn ñi parce que bu ñu waxee côté bi am na côté bee le cas de la Cheikh Moulay Sow ñu tënk eh, mu doon koo xamante ni chaque weeru koor dafay def social Ah, dafay génne ay ndogu di dimbali nit ñi di joxe suukaru koor vraiment ñu mel noonu tamit diine naka la leen di naka la diine consevoir loolu waa diine li mu gise loolu mooy joxe moom alaat li xaal wax naa la sànq ni la mm-hmm. diine diine lislaam mm-hmm. diine dimbalante la mm-hmm. wa taawanu alal birri wa taqwa képp koo xam ne nag yaa ngi jël wan fa képp koo xam ni yaa ngi jël yàlla wërsëgale di ko dimbali doomu aadama yi te jëmm yàlla rek tax soxlawoo ci ñoom woo ci ñoom ñu voteel la soxla woo ci ñoom dara mais danga ko koo def rek ngir yàlla kooku yàlla nee na sa fay man yàlla maa ko méngoo sa fay maa ko méngoo ndax bu ëllëgee yomal xiyaam yàlla nee na am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee buñ ma jub see dama leen di dummóoyu buñ ñëwee jub si ma dama leen di dummóoyu sama yërmande li muy yaatu yaatu yaatu buñ ca soxlaa duma leen may duma leen yërëm parce que dama naan leen ah yow ka diw man yàlla xiif naa bis joxoo ma ma lekk te yoroon nga lu ma lekk mhm. mar naa bis mayoo ma ma naan te yoroon nga lu ma naan mhm. tumranke woon naa bis fatoo ma te amoon nga fooma ma fat kon nag bis bis nii nga xam ne yowmal xiyaam gii nga xam ne man yàlla maa moom lépp duma la jox nga lekk sama yërmande doo naan dama lay bàyyi ci tumuraanke comme ni ma bàyyee woon ma tumuranke man yàlla jaam bi ni yàlla waa yow foo man a xiife wala ngay mar wala mu ne am na sama jaam boo xam ne maa ko bindoon mu néew doole gis nga ko mu xiif dimbali woo ko gis nga ko mu mar dimbali woo ko gis nga ko mu tumuranke ko noonu goo ko seetaane woon nag tey jii man yàlla noonu laa lay seetaane ki nga xam ne nag tabaarakallaahu moo yor alalam liggéey ko ba mu lew ko mu mënoon koo def nu ko neex mhm. parce que sarax bonus la rek mais du du force du force azaka mooy force mhm. azaka mooy force nga yor alal ba alal ji mat at atal mhm. loolu moom par force da ngaa a génne azaka par force boo génnewul azaka bu ëllëgee yowmal lakk lakbar boo jàkkaarloog suru borom yiw dootoo ko desee parce que dañ la koy tiire mais sarax du force. kon bonus la bonus la saa yoo ko defee nag xamal ni am nga. yiw wu denc la daal compte la boo xamante ni. denc la mi ngi mel ni nga jël nga jël benn waxuma la saaku ceeb mais nga jël benn tibb ceeb rek tibb ceeb tibb mm. sa loxo nii nga seexal ko nit mu sàqami wanaasu. kooku rek am nga yoo tabax junniy juma luqmatan waxidatan taqahu fi batnil jaa'i eh, kaman baana alfu jaami'i képp koo xam ni jël nga benn eh, tibb tibb jox ko nit mu lekk ko mel nga tabax junni juma yàlla nañ ko yàgg a defaral waxtaan bi neex na ah, kontaan ngeen bëggoo bëggoo leen mu jeex mais lu neex du doy on vous donne rendez-vous très prochainement xoolal luqumatan waaxidatan waaxidatan mooy lan luqumatan ab tibb luqumatan ak tibb waaxidatan waaxidatan benn boo xam ne benn la waaw oustaz maa ngi ñëw de taqaawu taqaawu boo xam ne def nga ko fii batnil jaay ci biiru aji xiif hmm. xayrul moo gën min binaa i alfu ay moo nga tabax junniy jumaa moo ëpp yiw daal ku tabax junni gis nga tabax junni jumaa nga xam ne yàlla nee na benn jàkka ma tabaxal la kër aljanna sa ndogu tey maa ko res <laughs> eh, yéen ji bu ngeen pare maa leen jox ndogu engagé nga merci beaucoup chers internautes de la TMS TV oustaz nañ nga bàyyi nga tàggatoo jërëjëf alxaaji jaaji ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm alayhi wa sallam tabaarakallaahu di e, ñaan koor gi niñ ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génne noonu ci alhamdulilahi rabil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf di leen fàttali ni El Hadj Thierno Moule Sow ren joxewul suukaru koor dafa nekk Europe moom moo tax moom moo tax ren ah ku xam El Hadj Thierno Moule xam ko ci so xam ko ci solidarité xam ko ci ndimbal ren dafee nekk moom moom moo tax loolu amul xam naa at bi di ñëw rek incha allah rabbi di ko jaajëfalaat bu baax di nuy ku nekkoon ci régie bi ji bi sëñ Fallou ah mënoon naa bàyyi ba koor gi ah, moom nekk nekkam fii ñëpp ci jariñu wax dëgg fa yàlla ah. ah parce que ñëpp a ngi jooy ah wax dëgg ñëpp a ngi jooy ab demam eh, espérons que di nga ñëw ah le plus vite euh, incha allah rabbi ji bi sëñ Fallou Baye jar nañu leen merci beaucoup waa régie di ngeen jox dig daje chers internautes ba beneen ci Ramadan temes